ak yéen fii waaye nag am na mi ñoo ngi fi Moustapha ngi fi Papa Ndiaye ngi fi ah dana mel ni laay lay li laa dana mel ni yaasa bu tuuru le premier sacrifice le père des sacrifices la grand sacrifice de père Alaaji Ndiaye <laughs> waa mi tey li nga sañte nii tey da ngaa topp dangaa eh, tey daa topp ay mbaxane non la topp tey sa poos waaw <laughs> ah, waaw nam ma dara mais da ngaa war a sañce xel mais mais déggoo ma de sa poos nga topp tey doole mais nam ma dara Euh, maa la wax loolu. laalal ma laalal ma jumal ma am ni waay nag mais xam nga ne moom moom waay ak mbaxane yi daal la jël. parce que Serigne war a ci woon boole tisi nag mbaxane bi nga waroon jël def ko loolu. <laughs> def ko laal. def ko ñooñu ñëpp. non nii laa def Ndiaye tey. ah. Ndiaye tey jël ma jël ma jël ma bu taay. kaw ba suuf njaay tey nii laa def. ma Ndiaye man namu dara. ah loolu nga may won nam nga dara kay. Ah. Ndiaye tey nii laa na ma a dara illallah waaw waaw waaw local consommer local local barke xale yi dama dem ci gaal waaye liggéey am na si réew mi nañ toog nañ toog nañ dëju liggéey mu daan doole ah. réew mi wàcc waaw waaw mais mais mais Moustapha ah. man après na ma jox mbaxana bi ak tiset bi mu jox la daal yi waaw na ma jox daal yi waaw <laughs> daal yi dafa rafet daal yi jox jox Moustapha tiset ak mbaxana waaw oh, affaire faralaate yi baa ma jox la daal yi nag ah. xam nga yow fu mu nekk nii yow man daal yi lu tax ma bëgg la ko jox mooy parce que yow doo dox lu bari. waaw dafa fure lay dugg ku commandé tiset. bu <laughs> ko am na daal xam nga loolu la. bon di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk téléspectateurs yi di nuyu ñëpp ku si nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di nuyu Bernio ki nga xamante ni mooy sama xarit di sama doomu ndey di sama amitié sincère di sama conseiller principal di sama lépp boo la ko déggee bi yoon góor la te ñoom ñaar ñëpp France lañ nekk. <laughs> xam bu njëkk dama doon wax Nafi Thiam. waaw Nafi Thiam waaw Nafi Thiam conseiller technique. ak psychologiquement. Ah, ah, psychologiquement psychologiquement. Ah, yaa ngi dégg conseiller psychologiquement la. ah conseil technique conseil euh, vravia conseil organe conseil tub yàlla sa jàmm yàgg taalibe sëñ naa Falilu boobu muy Adja Diallo tamit taalibe sëñ Seexuna Falilu Nafi Thiam taalibe sëñ Seexuna Falilu ñoom ñëpp maa ngi la ñu ni pareeguma regleel regleel damay jël sama temps comme sori baa ñëwagul damay jël sama temps may ma fii moom boo fi toogee ma maa la moom <laughs> jeex waaw may ma dama jël sama temps léegi nag léegi nag damay nuyoo déglu rek damay nuyoo de Tafa ah. damay nuyoo damay jël sama temps bélaale bélaale filaale ko sànneeku sànneeku <laughs> Mbay Thiam nekk euh, Mbay Fall nekk Bordeaux ah ah voilà tonton Mbay déglul tonton Mbaye. man sama numéro laa bëgg nga jël ko direct daa lu ma la war a wax. Mbaye Fall. <laughs> lan ngay la war a wax lan ngay de. Mbaye bu soobee yàlla numéro bi dama ciy def code. <laughs> doo ko jël. da nga ciy yokk benn zéro <laughs> dama ci yokk benn zéro Mbaye Fall tonton Mbaye nekk Bordeaux sama xarit boobu nekk consulat Bordeaux Mbaye Fall ku may wu ii tonton Mbaye Fall la wuyu ko en direct nag tonton Mbaye Fall la du wuyu en direct kii kii dama lay kar Thierno la sama doom bébé Thierno maa ngi lay may délicat xam naa ne wàcc nga waaw moom bu wàccee rek lu muy njëkk rek waa ah, ah. lay nuyu bu baax a baax maa ngi ni si télé bi daan doole di góorgóorlu voilà ñaanal ma yàlla rek sa baay am fayeku léegi <laughs> wàccoog yow bu soobee yàlla léegi nag <laughs> léegi nag. tonton Mbaye Fall. tonton Mbaye Fall. tonton Mbaye Fall xale yaa ngi jooy mag ñi ngi jooy gune yi ngi ëppale yàlla sa jàmm yàgg. amiin waaw ndax man sama diggante yow du loolu du lii Mbaye Fall sama conseiller nga sama grand frère nga sama lépp la du nuyuwaale sa doomu ndey yàq yaay Baba Diagne grand sëriñ. Tafa. déglul pareeguma. sa waay am na lu mu laal tey de. grand Serigne discours bu mag bii muy def. grand Serigne de Dakar maa ngi lay nuyu bu baax a baax. kii laal nga sek. grand Diagne maa ngi koy nuyu bu baax a baax doomu ndey Mbay Fall. taalibe sëñ Babacar si boobu. maa ngi koy nuyu bu baax a baax. <laughs> su ma fa jugee kii laal na sek. su ma fa jugee damay waar waaxu ba Washington. eh xam nga lan la eh, eh. eh, eh. doo eh, ma yab de xam toogal ma pare. may leen ma tey damaa jël sama après naa la ma. waaw ma rek ngir yàlla war a dama la koy mayaat parce que damay bañ su ma toogee fàtte lii may ba pare dimbali leen ma rek. tey jëlee nga émission bi de. waaw yàlla baax na comme kenn néewu moo tax place may ma place soxo. waaw nuyoo soxo may leen ma ko. waaw jërëjëf may leen ma nuyoo soxo. waaw ma nuyoo soxo. waaw jërëjëf maa ngi <laughs> man damay nuyu waa Amérique <laughs> nuyu na fi caam séeri waali maa ngi koy nuyu bu baax a baax Adja séeri waali maa ngi koy nuyu bu baax a baax ah fu ma fa jógee damay nuyu Fama Diagne doomu ndey ndey asu aaj bu baax a baax ah léegi ak kan laa war a nuyooti. waaw man man après nga sa waa koñ gëj booy sa booy yu toog sa sa booy sa yo sécurité. ñoom Abbas Diouf ah na daal maa ngi koy nuyu Abbas jaakatu xar bu mag bi tey boo gisee ma def laafa bi borom xaru laa doom bi maa ngi koy nuyu Abbas Diouf xaaral ma nuyu ko bu baax. Ah, damay nuyu Abbas. <laughs> mais man Sénégal kii daf ñëw doo ma may doo ma may nuyoo Omaro. nuyu Omaro jël naa bu soxom may ma bu Omaro. <laughs> capitaine man man doomam man baayam laa may la ma bosom. mu nuyoo ko waaw jële jële nga yow da ngay segg <laughs> léegi nag bu Omaro laa jël léegi man jël naa nuyoo Omaro maa ngi jël sama place di koy may ñi nga xamante ni Cheikh Abdoulaye Diop <laughs> maa ngi koy may faj jar naa xam. xaas ci jël bu Omaro yaa ngi jël naa bu omoro léegi nag dama si yokkaat samay nit ma nit waaw dama ko si yokkaat Abbas Diouf laa waxoon dama koy may Blin Gueye eh kooku moom damay koy tàccu moom. Eh, Blin Gueye grand Blin moom dama koy tàccu moom waaw Blin maa ngi koy may futur maire ki nga xamante ni mi ngi digal waa Kastoor lu baax di digal waa Kastoor lu baax ki nga xamante ne tey jii moom moo yor kastoor di koy lëmbee mu bëgg waa kastoor ba mu jeex jeunesse kastoor yëpp moo lay bëgg muy Blindé Gueye maa ngi koy nuyu bu baax xam nga dara tey dama laa andil waxtaan wu rëy ci la futur maire Blindé toogal waaw toogal ñu waxtaan toogal <laughs> mais mais mais mais Moustapha. waaw Moustapha doo may sa dama lay wax ni la damay nuyoo. balaa ngaa nuyoo ma ngaa nuyoo. Oh. yow il faut ma xoolaat say affaire. ah, ah. waaw tey nga jóg jàttalee di laal say lunette. waaw tey moom nii laa def ndax tey euh, notre pays euh, bonsoir les téléspectateurs les chers compatriotes notre peuple un but un fois tey on montre deux buts. solennellement Nos Sénégal daa dugal non non devise de notre pays c'est un peuple un but un foi. mais aujourd'hui on rajoute notre but il suppléant de but il s'appelle léegi un peuple de but. bonsoir les chers amis hein, les fans les téléspectateurs qui nous suivent au niveau des États-Unis Amérique Italie Espagne Mauritanie Gambie Nigeria Centre d'Afrique tout le monde. je vous salue et je vous dis bonsoir. waaw waaw waaw waaw ah. yow da tubaabe mais jël émission bi kenn du ko jëlee dënn. mais boo laalee sec mbaa nga laal Western Union. waaw tonton Mbaye Fall sama numéro jël ko direct daaw lu ma la war a wax li ma <laughs> yow zubal ma oma zubal ma zubal ma sama copain zubal ma am beaucoup eh zuma eh, ne li leer tonton Mbaye Fall tu as de parler am am di il faut que tu fasses ce que je demande. <laughs> sama nijaay la tonton Mbaye Fall. du sa nijaay tu n'as pas fait ce que tu as dit. mais de toute façon dans la vie. oui c'est la partage. c'est la partage mais il n'a pas fait ce que tonton il a dit tonton Mbaye Fall c'est pour tout le monde. oui il, il m'a fait de de ketchup. il faut tonton Mbaye Fall il faut partager. oui votre générosité. ah il a partagé tout. mais toi bon moi je ne. tu n'as pas tu n'as pas ah, partagé. tonton Mbaye Fall il a partagé tout. le ballon de passe tu personne. voilà eh. il la passe. il a fait un demi passe. kooku kooku tonton Mbaye. tu l'as donné il il fait un demi. man maay wax déglul man may wax tonton Mbaye Fall man maay wax parce que ñii dañu bëgg jaxaseeg yow. parce que kenn seetu la fii jóge fii dem ba Bordeaux seetu la man dong ko def. mais ñun ñaata yoon lañ fi bind SMS envoyé ko. Ah, waaw ok SMS SMS nga envoyé kooku SMS de. du lire SMS ah, donc kooku du lire. li appel normal. Eh, eh Twitter tamit dafa xew ci jamono de. Moustapha yii kooku du lire appel normal. dafa da ngaa def nu ma saf. Ah. noo xam ne moom laa bëgg ñu waxtaane ko tey. parce que dëkk bi nag. duñ ko bokk moom ko ba pare. ni nga civilisé nii. Mhm. suñu dëkk bi noonu lañu war a nangoo mu civilisé. dafa jot nag. ndax belee la futur maire waaw nee na moom incha allah yooyu yëpp su ko suñu borom joxee fa mu dëkk dana ci taxaw waaw mais Moustapha tey lan nga gis ni Sénégal moo nu manqué ba ku fi dugg naw loonu kuy génn xam ne ñoo ni ci dëkk bu set d'abord la la la la première règle oui les gens il faut respecter les rangs ils bourlent tous les Sénégalais tout le temps ils <laughs> venu sur le rang Il a la première, il a la deuxième et il y a la derrière. Mmh. Comme tu la derrière de la rang, il faut respecter la rang. Mmh. Tout là en plus, il faut les gens faire essayer de, de, de, de nettoyer notre pays. C'est important. C'est très important. L'Afrique, c'est une grande euh, terre.